nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur Ali Imran TV dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu suba si ci ndimbalu technicien yi ñu àndal ci wàllum xarala gi ñu di leen ñaanal yàlla suñu borom jalla wa ala yal na leen sàmm wottu leen aar sottil leen seen mboolem mébét yu baax yi ñu nar amin ya rabbal alamin mbokk yi tey di àllarba mu tombek juróom benni fan ci weeru jumaada ula mooy rakkaati gàmmo moo tombe gàdday yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante quatre xanaa di fàttali mbokk yi rek des na suñu diggante ku weeru koor jours moo des suñu diggante ku weeru ñuy ñaan yàlla suñu borom buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp lañ fa jaamu yàlla yan ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokkoy tey di àllarba mu tombeek juróom benni fan ci wéeru rakkaati gàmmu ñaan bu ñu am ci almunaak ba ñuy wéttalantik yéen fii ci Ali Imran TV ci waxtaanu suba si mooy tey ñaan bi bu yeboo ñu ne njàmpe ak saabu ak dex ndax xeetu istixfaar la boo xamante ne bu ko doomu aadama bi sango rawatina julit bi bu ko defee mboolem xeetu bakkaar ya taq ci moom dina ko raxas ba mu set mooy ndax yow jaam bi da nga am ci ay rëcc rëcc yoo xamante ne mën naa nekk sa diggante ak sa borom mën naa nekk sa diggante ak sa moroomu doomu aadama waaye mun naa nekk sa diggante ak sa jëmm ji ba tax na dañoo sopp ngay jéggalu fa yàlla ndax yàlla bokk na ci turam yu sell yi te màgg mooy alxafaar ba tax na yow jullit bi del dëkk sa loxo di ñaan sa borom ne ko astaghfirullah alazim ma ngi sàkku sutura ma ngi sàkku fa yàlla bu mag bi alladi yalla mooy buur bi nga xamante ne laa ilaha huwa amul kenn amul lenn amul benn buur bu fi dukkat bu dut moom yàlla alxayu mooy ki dundu du fi musa jóge muy dundal lépp li fiy jóge alqayuum moo fi sax nekkal fi jëmmam yu sell waaye nekkal fi jaamaam yeeg mboolem mbindaa fuunaam yi taxawee leen taxawee seen mbir nga daldi ko ne wa atubu ilayhi maa tuub fa yow yàlla nga nangul ma sama tuub bi mbokk yi dafa bokk ci la jaam bi di ñaan nga bàkk ko kañ ko tagg ko daal di ko wax sa bëgg-bëgg rawatina sa jéggalaakoor bi ngay sàkku ca moom kon ñu nit ñu ngi ko naan astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi yal nañu yàlla boole jéggal raxas suñu bàkkaar fuut suñuy bàkkaar ci suñu jëmm ji amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot tey xadis ba nekk ci suufu ñaan wi jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu mag di abi hurayrata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal saxaabi bi di abi hurayrata radiyallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm nee anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi rasulul mustafa sallallahu alayhi wa sallam nee na almalaikatu malayka yi de tusalli ala ahadikum dinañu ñaanal kenn ci yéen maadaama fi musallahu alladi salla fiihi fekk mu ngi toog foofu mu joxe waxtu wi nga xamante ne joxe na ko maa lam yuxditu fekk njàppam ba tojul fekk amul dara lu toj njàppam malayka yi dañ koy ñaanal taquul ñu di wax aji toog boobu mu toog fa mu jullee waxtu lañ koy ñaanal mooy dañ ko naan allahumma buur yàlla igfir lahu yàlla nga ko yërëm yàlla nga yërëm sa jaam bi allahumma irhamuhu yàlla nga jéggal sa jaam bi waaye nga ko yërëm yàlla nga dottil sa kaw jaam bi njéggalaakoor waaye nga ubbil ko buntu yërmande allahu akbar mbokk yi li ñu mën a déggee ci maanaa bi bari na lool waaye ñu tënk ko rek ci waxtu bu gàtt suñu yenentu bi alayhi salaatu wasalaam moo ñuy baaxee ne ñu almalaikatu tusalli ala ahadikum ma daama fi musallahu alladi salla fiihi malaaka yi de malaaka yàlla yi de dinañu ñaanal kenn ci yéen fekk mu ngi toog fa mu jullee farata fu mu jullee farata fekk mu fa toog jógu fa maa yuhdis fekk njàppam tojul amul dara li génn ci moom la tax njàppam bi di toj fekk loolu amul malayka yi dañ koy ñaanal te xuol ñuy wax jaam boobu ñu ko ñaanal yàlla ne yàlla allahumma buur bu mag bi igfir lahu yàlla nga ko suturaal igfir lahu yàlla nga ko jéggal allahuma buur yàlla irhamuhu nanka yërëm nanka sànge sa malaanu sutura waaye nanka ubbil sa buntu yërmande kon ku bugg sàkku ñaanu malaayka yi fa yàlla ah boo julee farata ba bare toogal yore sa kurus di tocc toccaaral wala nga toog ubbi sa téere di géema nab nabi fekk yaa ngi def loolu ah malaaka yi dinañ lay ñaanal yàlla njëggal wala ñu di la ñaanal yàlla mu ubbil la buntu dem nodd nañ fajar balaa ñu naan asalaatu xayru min an nawm géema la góorgóorlu daal di dem juli sa tahiyatul masjid si jàkka ja toog di xaar ñu noddu diggante boobu dañ lay ñaanal yàlla njëggal malaayka yi ñoo koy def waaye ba léegi malaayka yi dinañ la ñaanal yàlla mu ubbil la buntu yërmandem noonu la yeneen waxtu julli diggante bi nga joxee ak bii di ñëw toogaay boobu ngay toog moo xam sa kurus nga yor moo xam sa téere alquran nga ubbi di nab nabi ci diggante boobu la yonent bi na sallallahu alayhi wa sallam fekk bi tojul malayka yi dañ lay ñaanal yàlla njéggal ñu di ñaanal yàlla mu ubbil buntu yërmande mbokk yi lii la leen Ali Imran TV andil tey ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والطغى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألك ألا تحرق أجسادنا وكم سجدت لك جباهنا وذلت لك رقابنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان